bismillahi arrahmani irrahim an tariq bin yashyam radiyallahu anhu qaal jëlee nañ ci suñu sang tariq bin yashyam yal na yàlla gërëm ko mu ne kaana arrajulu ida aslama allamahu annabiyu sallallahu alayhi wa sallam alsalata summa amarahu an yadcuwa bi haulaai alkalimaat su waay duggaan ci lislaam yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ka daf koy jàngal julli digal ko mu ñaan yàlla te ñaanee ko baat yile allahumma ghfir lii yow yàlla yàlla nag ma baal warxam nii yàlla nag ma yërëm wahdi nii yàlla nag ma jubal waxaafi nii yàlla nag ma jàmmal warsuqu nii yàlla nag ma wërsëgal rawaahu muslim xadis ji muslim moo ko solo wa fi riwaayatin lahu am na ci beneen riwaaya imaam muslim an taariq jëlee ci sayduna taariq mi annahu samica annabiya sallallahu alayhi wa sallama mu ne dégg na yonentu sallallahu alayhi wa sallam wa ataahu rajulun te fekk ab waaye ko dikkal fa qaala waa ji ne yaa rasulallaahi yow ki yàlla yebal alayhi salaatu wassalaam kayfa aqulu xiina asalu rabbi naka laay waxee maanaam lu may wax su ma bëggee ñaan yàlla qaala yonentu sallallahu alayhi wasallam ni ko qul waxal allahumma agfir lii yàlla yàl nag ma jéggal warxam nii yàl nag ma yërëm wa aafi nii yàl nag ma jàmmal warzuqu baat yiile te tajmacu laka dunyaaka wa axirataka dana la booleel sa àdduna ak sa àlaxira maanaam looy wut ci àdduna ak looy wut ci àlaxira mi ngi ci baat yi bu ñuy ñaan nañu fexe di tànn baat yi ñu yàlla tànnal ci alxuraan tànnal ñu ko jaarale ko ci làmmiñu yonentu sallallahu alayhi wa sallam ak ñiy baax ñi topp ci ginnaawam ndax ñoom ñoo xam yàlla ñoo xamit soxla ñun xamuñ yàlla xamuñ soxla yal nañu yàlla may yàlla yaa rabbi wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim